Alors, mon nom c'est Mounia Sissé, directeur euh, exécutif de ONG 3D de liggéey la démocratie droits humains le développement. waaw bilan du président Macky Sall ci at bi buñ ko doon def mën nañ né amna def. waaye jéego yooyu ñu xeep la jéego yu waroon romb fii la ndaxte jéego yi nga xam ne mën nañ ko jàpp mooy le fait ñu fal ko ci wàllum démocratie mu woote dialogue je crois que euh, la bu am solo pour ñu waxtaanee ko waaye ñu ngi apprécier euh, jéego boobu ci euh, bu fekkee ne dafay judd ci dialogue bi appliqué na ko. beneen bi mooy ci wàllum euh, diplomatie gis nañ ne euh, am na jéego ñu ci def parce que gis nañ ne temps yi euh, ci at bi bari na ay réew yu am solo yoo xamante ne def nañ seen jéego ñëw Sénégal pour lëkkaloo moom te mu daan ay réew yoo xam ne tàmm ñu leen fi gis ci Sénégal ci suñu diggante France nga xam ne Sénégal yëpp dañ daan ñaawlu nit ñi nootee ci beneen xeetu nooteel muy li ñuy wax néocolonisation gis nañ ne aussi am na jéego lu ñu centre na bëgg nañ ko ci def donc loolu mun na nekk lu ñu rafetlu ensuite ci àll bi gis nañ ay réalisation yoo xam ne def na ko waaye fi ñu koy xaar mu jëm ci wàllu ak ak yelleefu doomu aadama ci wàllum démocratie ci wàllum gouvernance maanaam yoroon bi sell foofu santiruñ fa jéego te foofu dafa am solo parce que tey réalisation yi nga xam ne mu ngi koy def ci yi ma jot a tudd président la république ab Macky Ablaye daan na ko fi def mais terewul sénégalais yi mere woon ko ba jëlee ko fi li ko sénégalais yi gënoon mere du woon parce que deful ay réalisation mais parce que peut-être yorindi parfois moo daan xaw a xajam justice bi am justice su kumba am ndey kumba amul ndey ensuite fali ni ku bokk ci man ma fal la ku bokkul ci man du ma la fal du ma la nome donc foofu la ñuy xaar président Macky Sall maanaam lu jëm ci wàllum gouvernance te booy jël ci wàllum gouvernance dafa am gouvernance économique gouvernance politique boo jëlee ci gouvernance politique defagul benn jéego boo xamante ne nii mun nañ ko méngale ak jéego yi fi ñi ko jiitu def tey loo munti wax président Senghor moo indi multi euh, d'abord multipartisme mais limité ko ci trois courants Abdou Diouf ñew indi multipartisme intégral manam ne jatt jàkk gaa ku mu neex nodd bolé ci indi fi ONEL observatoire national des élections bolé fi indi ministre de l'intérieur bu farou fenn etc etc et indi fi code consensuel bu 92 ak keba Mbaye code bobu tay mo waral ba bu ñuy voté kenn du buure urne yi bu ñuy voté mu am bañ gàcc code boobu moo waral tey ba euh, mu am encre indélébile code boobu moo waral ba suñu démocratie am jéego yu bari donc tey bu président Macky Sall ñëwee ci wàllum démocratie dañ doon xaar ci moom aussi mu gën ci teg ay jéego mais tey ba léegi amaguñu jéego bu ñu gis ci wàllum démocratie bu fës bu mu teg parce que après Abdou Diouf nag président Abdoulaye di ñëw na moo ñu indil Sénat indi fi ministre de l'intérieur bu farul fenn indi fi yeneen indi fi yeneen mais président Macky Sall ci côté démocratie vraiment war na gën a yokk taxawaayam bu ñu doon def bilan ci côté démocratie mënuñu ko noté noté bu am solo mesures yi mu jël yépp mesures ñu contesté la moo jëlee parrainage bi c'est contesté li mu waxoon ne du am ministre de l'intérieur bu far fenn mu ngi ko fi def sena bi fi Ablaye Wade bàyyi te mu nekk fi ba léegi ñëpp gis nañ ne amatul euh, efficacetul alors boo jëlee ci wàllum ak euh, ak yelleefu doomu aadama droit wu marche loolu waroon nañ ko dépassé tey bu ñuy tëj nit parce que dafa marche loolu dellu ginnaaw la ci wàllum droit bu ñuy tëj nit parce que dafa dem pale parce que dafa bëgg marche loolu dellu ginnaaw la ci wàllum liberté arrêté Ousmane Ngom delu ginnaw la mom taxawon na ne arrêté Ousmane Kom de fi faloo da ko fi jele jele ko fi loolu tam delu ginnaw la ci walum démocratie sénégalais bi fu mu bëgg warna marché alal ji ngay def pour xagn marche am mo ëpp alal bi ngay def pour encadrer marche ya xeyti Sénégal war nañ dépasser ay problème marche wara am yenen yu ñuy ñoŋalee suñu démocratie kay problème mu marche alors benen bi moy bo jëlé ci walum démocratie euh, économique manam gouvernance économique tay ji ñep xam nañ né euh, rapport yi ñuy muy euh, muy dout baram ñi nga xamné dañu far ci mom dara du len ci fekk tay rapport yi bi fi président Macky Sall ba légui rapport yi fi ñëw dut baram ñu farul ci mom rek mo am muy suite muy euh kaw Khalifa Sall par exemple loolu du du yoon euh corps corps de contrôle dañu wara am ndariñ Sénégal yi am ci ñom yaakar par exemple tay gis nañ rapport ARM ba cour d'appel rapport cour des comptes ñi ni kenn amatu ci yaakar waxu ñu sax ñu tejj leen ñu leen tejjul parce que peut-être ñu leen tëjee tam au lendemain ñu gracier leen mais ñu wàcc leen sénégalais y a 16 millions de sénégalais maintenant ci 16 millions de sénégalais yi bu fekkee ne am na 100 ñu si yorul yoreen bu sell même boo fekkee ne jëloo ci yeneen sénégalais yi bokkul sa parti mais si sa biir parti am na ñoo xam ne mun nañ yor yor bu sell pour nga wan signal bu foor sénégalais yi wàcc ñooñu teg fa ñeneen ñu xam ne yow yoreen bu sell ñor na la mais ñu génn rapport yi. amoloy wax loolu dul damay teg commission loolu tamit loolu lu ñuy naxarul la loolu du du du dëgg du yoon alors ensuite ëllëg ñu waxal nu ñu ñoŋalee suñu démocratie ñuy wax tey ay feru statut Dakar wax dañuy nommer ay maire Dakar loolu muy reculu ay téeméer euh, mun naa ne reculu téeméeri téeméeri at la parce que bi ñuy fal Dakar maire premier maire Dakar ñu ngi ko fal 1887 Dakar bi muy nekk. commune ba ñuy fal meeram boobu amaguñu sax indépendance tey amul benn débat bu ñuy indil bu dul ay dañuy war a far euh, dañuy war a statut spécial pour euh, pour maire Dakar ñu ko ñu koy ñu koy nommer loolu dellu ginnaaw la te booy xool histoire Dakar Sénégal da ko naroon ñàkk boo xoolee dëgg histoire Dakar naru bokk ci biir cap bi naroon bokk ci biir Sénégal foofu Mamadou Dia moo fa def liggéey bu am solo ba mu des fi tey ñu ñuy wax dañuy fal ko nommé maire Dakar Fina, bu fekkone dafa jóge ci ay ay militants ñu mën comprendre mais institution la L'institution institution au Conseil des collectivités territoriales moko wax te au Conseil des collectivités territoriales xaar nañ ci mom lenen dul ay réformes té déjà institution la bu ñuy milliards par an ñu fo euh témer nit ak juroom fukk. di leen jox suñuy dix milliards par an amuñu leneen luñ ñuy proposé loo xam ne mun na ñëngal suñu démocratie ñëngal suñu décentralisation lu dul di wax ay nommé maire Dakar loolu jar na ñuy joxe dix milliards par an une institution loolu problème la alors euh, beneen bi mooy nommé maire Dakar mooy ginnaaw recul démocratique bi muy def mooy day créer brèche gis nga brèche su ndar bi biñ koy tijji lu ndaw la woon. léegi ñaata kilomètre la bi koy tëj matul woon sax <laughs> euh, un kilomètre léegi ñaata kilomètre la boo tëjee brèche maanaam boo tëjee ndey gis rax da nga xam fu muy jëm tey boo nee da ngay nommé maire Dakar jox Dakar statut spécial danga xam lu mu mën a jur. mun na jur yeneen dëkk jug laaj seen statut spécial mu indi coow mu désintégrer notre euh, intégrité territoriale waruñu foowee réew mi waruñu di def ay réformes pour walla contre nit. dañu war def ay réformes pour ëllëg ëllëgu réew mi loolu mooy dëgg ji donc pour wax ni donc ci wàllum yorinu askan wi euh, foofu la ñuy xaar président Macky Sall nekk ña ñaareelu ak ñett dernier mandat am dañ koy xaar mu jox mu teg ay jéego yu ñun sénégalais yi mën a teg bët ci wàllum démocratie ci wàllum justice parce que suñu justice bi tam justice Euh, kumba am ndey kumba amul ndey la ñu xoolaat suñu justice bi moo tax ñu am espoir bu bëgg bu dialogue bi li muy jur ñu appliquer ko donc ci tënk bari na problème yoo xamante ni mu ngi fi lekk ak naan am na solo waaye yoreen bu sell amit am na solo bu dëgg parce que moo mën a naxasal réew suñu li ñuy yoree suñu suñu li ñëpp bokk muy ressource naturali yi aussi war nañ ko seetaat lu dëgg xoolal problème yi am ndar ak feneen bu ñu deful ndànk xoolaat nu ñuy pencoo suñu ressource naturelle mën nañu jural saafaan donc pour dire que dara at ci ñeenti at yi li rendre service Sénégal mooy d' abord coow troisième mandat mu ñu ko ci amul ben réew boo xamante président ba yàgg na fa réew ma continuer ko bëgg réew boo gis président ba ñu koy aduler maanaam di ko sargal bi mu fa jógee c'est parce que yàggu fa jëlal Mandela bu yàggoon ci pouvoir war na ma ne dina dem ba ñun ñu xas ko boo jëlee euh, Burkina Faso Thomas Sankara tay bu ko Burkina bay di sagar c'est parce que yàggu fa l'usure du pouvoir ça mène à ce que ñu ñu owé euh ce peuple waccu la gis nga De Gaulle dafa une popularité bu reuy waaye 65 bi mi porté waat candidat contre Mitterrand mandat de trop la yeggalul mandat boobu bi mu ko gagné te deuxième tour la ko gagné. en 66 bi mu falo 68 nga dégg problème yi grève yi ñëpp grève kenn gëmatu ko parce que boobu déjà def na def na euh, mandat euh, nit ñi bëgg ko mu jàpp ne rek noonu la war a continuer amul benn nit koo xam ne dañu koy continuer di bëgg muy jiite éternellement ci république laata muy mandaam di jeex dem na bi mu proposé référendum pour ñu xool Sénat bi ak ak euh, euh, nu mu tuddati def régionalisation mais français yi dañ ko werdi waaye te mu def preuve de grandeur parce que daf demoon bu ma gañee bu ma gañeewul référendum bi damay dem mu dem tu donc nguur kenn du ko ñëdd président Macky Sall donc nguur gi na jàpp ne bi mooy dernier mandat parce que coow premier mandat bokk na ci li door man kiiwam eh, eh, pouvoir qui mandat bi mu réglé ko mu leer nañ parce que préserver partem warul tax waru ko def au détriment de la patrie man japp naane du laaj sax troisième mandat mais mënu ci wax ndax ne soi-disant de préserver partem mais non da ko war wax mu leer les problèmes si au sein de son parti mu réglé ko au sein de son parti alors ba taxna 4 ans yi ko dese bu amé luñ koy mëna wax lo xamné dina tax mu am way moy mu ñongal suñu justice ba nga xamné du neen justice ku kumba am ku kumba amul nday ku far ci man dara du la jot ak loo mënti def ku farul ci man nak ma tejj la wala ma def la nu nonu suñu démocratie mu japp ne bu ko fekkoon ci fukk da ko war a yóbbu ci ñaar fukk fi ko ñoom Abdoulaye Wade yóbbu daf ko war a jël yëkkati ko yóbbu ko fu gën a sori alors suñu wàllum nag économie mu xam ne moom la yàlla def mu tombe ci suñuy koom-koom suñuy ressource naturelle feeñ mu gën ko gérer si impliqué waale ci askan wi jiital njariñu askan wi génn ci lépp lu taq ci njabootam maanaam fameem entourage Lors moi tax aussi bu fiy jugé faire bi du am ay conséquences Si njabootam ëllëg mooy tax bu fiy jógee aussi mu am way bu rafet une vie après la présidence bu vous président la am vie après la présidence bu entourage bu entourage bu koy bëggal euh, euh, way bu rafet war na ko mën a xeral ci côté boobu sénégalais yi desalatuñ ko dara def nañu wax moom li ñu waroon def wax moom parce que dénk nañ ko dénkaat ko ñaari mandat donc li mu mën a delloo njukkal sénégalais mooy buy dem bàyyi ñu fi Sénégal boo xamante ni euh, amul dret bu touru nit génnu fi aduna manam une transition pacifique loolu lañuy ñaan ci suñu rew suñu rew mérité nako ko te war na ko am loolu la yéene suñu rew suñu rew mérité nako ko war na ko am